mais mënuñoo occulter quand même que ni dañoo amoon ay alliés du Pastef kese ñoom ñoo ci nekkoon est-ce que mën nañ koo gisee angle boobu maanaam partage gâteau mën na bañ a nekk partage gato tout simplement am nañ ay alliés yoo xam ne compétence yi ñu soxla mën nañ lañ faa teg mbax ndax wàllum compétence la ñuy wax dégg nañ fi euh, gouvernance bu bees bi nga xam ne bëgg nañ koo indi c'est pas tout simplement ay militants ñoom ñooy jël ay postes dañuy xool nit ñi ak lu nekk ndax am nañ xarañte bi pour def ko est loolu mën nañ koo occulter vraiment mën un partage du gâteau xañ na dañuy xool naka la ñuy gouverner ensemble ndax ñoom ñoo àndandoo xeex ensemble et puis accéder au pouvoir ensemble. naata loolu bu ma la ci wax dama la ciy wax rek par principe ak li ma xam ci Ousmane ci doxalinam li ma xam ci Ousmane ci doxalinam moo di d'abord dafa ragal injustice ensuite li mu mës bëgg depuis le début moo di diw moom a jege rek dama koy jox lii loolu moom principe la donc ci principe bi rek laa lay wax waaye li ma autorisé wul. waxtu woo xëyee toog ci sa palaato bii du ma la woo la naata waxeel nii du ma la toog ni la euh, tuddal ànd saxal liggéey loolu ma loolu ma ma tere loolu loolu moo ma tere may jéem a xam ci gouvernement bi dara te newuñu ma lii nga war a xalaat wala laa nga war a xalaat wala ñu laaj ma ci sama xalaat te laajaguñ ma ko ci. mais yéexaay bi yéexaay bi. leneen li ci des léegi yéexaay bi wax ngeen léegi enquête de moralité de amu fi woon. Mhm. ci ñoo xam ne euh, ñu ngi door a daje. amuñu woon temps ñu ngi woon prison. gëj nañoo gis nit ñi diggante bi kenn xamul lu fi xew ñun bi nga xamee ni nit ñi song nañ ñu te du ñu def coo xam ni dañuy ñëw jël ñëpp man bi may bëgg dem campagne ñi doon signé charte bi ñu ngi toll woon ci 166. Mm-hmm. actuellement conférence des leaders mu ngi ci 466. 266 astafirullah mu ngi ci 266 te ba léegi am na ñu bëgg a la conférence de leaders donc yooyu yëpp su dalee ci sa kaw da nga war a xool xoolaat. su fekkee ne am nga ay compétences yoo xam ñu nekk Pastef ak ñu nekk feneen il faut nga xool xoolaat d'autant plus que ñoom nee nañ dañu bëgg a jël ci réew mi ak ci diaspora bi donc loolu yëpp yaakaar naa ne fii mu nekk jëlaguñu gouvernement mais dara tardéegul nag mais fii mais est-ce que yow da nga war a toog di xaar ba ñu woo la laaj la seen sa avis pour nga mun ko joxe. ndax quoi qu'on puisse dire. Mm-hmm. macha allah am nga expérience politique. Mm-hmm. Diouf Wade Macky Sall ba ci tey président euh, Diomaye. Mm-hmm. est-ce que war nga rek toog xaar ne comme woowaguñ ma man maay seen yaay damay xaar ñu woo ma ndax taxawaayu yaay parfois euh, di nga guider sa ay doom pour ñu xam fan la ñuy teg seen tànk d'autant plus que euh, comme ni nga ko waxee ñu woon ensemble am na rëq yu bari yoo xamante ne ñu war a mën a jël seen temps beneen bi mooy est-ce que euh, li may mën a doon wax ci laay dellu si le fait de euh, prendre le président Ousmane Sonko comme premier ministre est-ce que c'est une bonne idée ndax yàgg nga ci gouvernement seetlu nga ni souvent bu gouvernement bi amee ay problèmes yu ci am premier ministre bi a gouvernement bi ñoom ñooy payer les pots cassés ñoom la ñuy changer mais le président va toujours rester est-ce que donc le fait de le mettre euh, si place au premier ministre c'est une bonne idée aujourd'hui gis ma parce que gis nga ñoom seen relation boobu man sama bakkan laa ci teg su doon yàqu de dinaa jóg mais dara yàquwul ñu ngi tëdd muy dox comme ñu ngi du noonu lañ koy waxee xale yi. mu ngi toog muy dox voilà ñu ngi toog muy dox. mais yéen toog muy dox jeex na fi de. donc ñu ngi. <laughs> toog muy dox jeex na ma ma. te dafa am fu mu jeexee am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne seen toog muy jeex moo jeex <laughs> dégg waaye fii mu nekk euh, ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey wax naa la ko léegi. yi ñuy arrangé dérangé wul kenn euh, diggante bi premier ministre ak euh, président di am problème du Ousmane Sonko nangul leen ko Ousmane Sonko générosité am nangul leen jomaay ay am du ñoom ñaar ñooñu nga xam ne dañu xamante tuddante ay doom xam kenn ku nekk li mu séq ak moroomam ku ni nit su ma naree politique naree tàqaleeg yow ma bàyyi politique ndax yow mii lay offrir en exemple sama doom le président Diomaye doomam moo ko gënal poste bi mu yore donc loolu foofu la ko aj c'est-à-dire c'est une transparence boo xam ne yéen poser ay question rek mooy seen métier waaye kon ngeen tontu ma xam ne mën ngeen maa tontul seen bopp en réalité më mënul am problème problème yi mënoon a am ci di ay premier ministre Diouf ak Wade ak Senghor yooyu mënul am ci diggante Ousmane Sonko ak Diomaye man jusqu'à preuve du contraire je dis que mënul am parce que dama leen xam fréquenté leen donc loolu mënul mënul mënul